salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalib yi salaamaaleykum wa rahmatullah noo ngi leen di nuyu fii ci kër Cheikh Mouhamadul Muntaqa xafisahu llahu wa raahu wa ayyadahu wa nasara di ñëwati rek ci ni mu ko daan defee ci waxtu wu nekk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 kon nag lépp loo xam ne yàlla suñ borom teg na ko ci suñu kaw ci nattu nañ ko delloo ci moom ngir xam ne moo waxoon ci alxuraan ne wala nabluwannakum ko shay'in min al xawfi walla juu'i wa naqsin min al amwaali wala nafus wa thamaraati wa bashiri sabirin kon mooy lii fii jamono toll tey ndax mooy firfir ju métti euh, jamono joo xam ne day mel ne nit ñi dañoo amul duñ lekk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 li nga xam mooy sunnatullahi fil ardi mooy walaqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna allahu allazina sadaqu wala ya'lamanna alkaasibin naka jëkk sa su adduna masaan dem ba agsi fii dana wàcce ab natt boo xam ne doo koy jëmee ci nit ñi loolu nag moo xam la tax mu def ko jublu ci dara nag lu may faral leen seeni rëcc-rëcc ak yokk ay tuyaaba kon nag bu nattu agsee na ko ñëpp delloo ci yàlla ngir xam ne fa arsalna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 yéen a ngi ànd ak seen portail Baol Média nekk fii ci Mbàkke Baol gën ci am bépp actualité ànd leen ak seen portaay Baol Média di première portail d'information générale fii ci région